ahousubillahi min asheytaani irajim bisimillahi irahmaaniirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci juróom fukkeelu jotaay ak juróom benn ci téereb xalimag leer noo ngi ci wet gi nga xam ne dañ koo jagleel wàllu sant ni xasida yi jëm ci wàllu cant te muy xasida yi tëj téere bi Euh, ginnaaw wakaan xaqan tey noo ngi tàmbali xasida ak fini xasida la goo xam ne bokk na ci sëriñ Touba way di ci sant boroomam mu ngi ko bindee njaareem sëriñ bi indi na ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent tur yàlla yi 99 yi tàmbalee ko ci ñetteelu bayit wi ba ci wu mujj wa ñu fekk ci ñaari bayit yu njëkk yi moo tax li mu bayit yëpp doon téeméer ak benn ikfini ay bayitam téeméer ak benn la ci tàmbali xasida gi lu jiitu bayit yi sëriñ bi mu ngi ci ñaan boromam ne sunu borom yàlla nga ma nangul xasida gi nangu goo xam ne ñu njëkk ña ak ñu mujj ñi dinañu ci yéemu wa taqabbal minni haadihi alqasida qabulan yatacajjabu minhu al awaluuna wal axaruuna bila aafatin wala kadarin fi cheyin ma abadan amin sëriñ Tuubaa feesal na ci ak cant gu rëy lool diggam ak boroomam lu néew la ci jëfandikoo sax ay ñaan waaye sa su ne day tudd turu yàlla di tudd may yoo xam ne yàlla defal na ko ko ndax mi ngi naan sunu boroom yow mi aji mucc ji yow mi aji mucc ji nga xam ne musal nga ma ci lépp musal nga musal nga sama lépp ci sama sikki bakkan ci taxañ gu bàyyikoo ci yow muy anta salaamu la si sallamta kulli yamin waxyoo bi nafsi bi tayyi min ko yàllaahu nit ku nekk bakkanam ab noonam la boo xam ne mën na ko gàllankoor bu baax diggam ak boromam moom sëriñ bi nag yàlla da koo moom loo bakkanam ba sikki bakkanam yi nga xam ne moo sonal ñu bari amu ko ba mu koy gàllankoor amut sikki bakkan ju koy gàllankoor wax jooju bu nu yegsee ci xasiid ak jaawartu dina ci gën a leer taxañ gi mu wax ne sunu boroom taxañal na ko ko tam indi ko ci bayit yi ni ñu koy misaale mooy ku jóge ci barab jëm ci barab am yoon wu mu war a jaar mu jékki rekk gis boppam fi mu jëm nga xam ne yoon wa gaañu baax ni jaar muy gudd lool moom sëriñ bi jaaru fa sunu borom da ko taxañal yoon wi rek mu lay wax ne tawaytu tariq al qawmi waqtamtidaahi wali qarxal al xaajaati bi rawdi wal basti moom nee na buy tàgg yonent bi sallallahu alayhi ci waxtu woowu day taxañ yoonu gaañu baax ñi ku ne ci gaañi rek day am fu mu jógee am fu mu jaar di dem sëriñ bi ne moom sunu borom dana ko coppet ci barab teg ko ci barab nga xam ne lépp dañ ko ko e, taxañal ba tey ubbil gi ko yàlla ubbil ay buntam ba lu gaañe mos a jot mu jotte ba jot ci la ko awee njottam ba jot ci lu ñu jot mi ngi ko ci wax nee na sunu borom yow mi ajji ubbi ji ubbil nga ma mboolem bunt ya yaa nga ubbiloon wàlliw yi fataxta li kulla baabin kunta faatixahu li awliyaika yaa fataahu yallaahu loolu bu nu ko seetloo ci xasida ak jaawa sindi di la ko njëkk ñaan ci xasida ak muy wafta wafta lana kulla baabin kunta faatixahu li saalixiina min alxayraati yallaahu loolu ak ñaan la bu dee ci xasida ak fini nag moom ak kent la mooy dana ko ubbil nga bépp bunt boo xam ne ni ubbiloon nga ko wàlli wi kon noo ngi yam foofu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu